dama leen a a xam na France mais bi ma leen xamee France bi may ñibbi kenn ku nekk yëkkati nga cinq cent euros may ma yóbbu ma ma aéroport ay parfum ay perruque bi ma sol ñoom ñoo ma ko jox ndeysaan bii baa mii ak Myriam waaw baa ndeysaan kenn doo xoolal sa jëkkër nii <coughs> ne ko livre bi mu kii koy may xanaa ah, waaw <laughs> ah, dama koy non non jëkkëram moom man la bëgg jëkkëram man la bëgg. waaw sama jëkkër ndeysaan xam nga lu ko dal moom bëgg ndéygee rek lu ma naqaree ngi noonu te waaye ndéygee papa man la bëgg man. <laughs> waaw loolu xam na. <laughs> sama jëkkër ne ma booy xuloon ndéygee ma lay ma fase ma ne ko eh déggal li yow na. waaw loolu la wax keroog man ko loolu garaaw na de papa boo jënd su ma xuloo woon ndéygee fase ndéygee man ko yaa ngi dugg si yu garaaw nii. bilaa moom la dara bëgg man ko Biba. waxal Miriam bu jëndee bu jëkkëram bi ay nit yu baax ngeen nag ndeysaan léegi jëkkër ji ah. yow lii rafet na. dégg nga lii man léegi fi ñii di jaay ay jàllaabe moom mu jaar ci jëkkër yi la jaar fi doon ni mën naa lekk xaalis eh, ñëpp beneen bi nga ne nga ne man ko ñii jaay jàllaabe ñii di jaay ay ay yu ne di xeexoo ci dëkk bi ñii dem ba Dubaay di xeex ndéegéey moom jaar ci góor ñi fi ñu toll ni yow mën ngaa lekk xaalis ñëpp ah, ñi c'est que sorti de l'ordinaire xam nga luy problème bi lan moo doxal Chine ma wax la lan moo doxal Chine chinois yi xam nga lan moo doxal seen njaay kii bu jaayee montre kii saak lay Sénégal na ñëpp dañuy jaay ndoo man ah, bëgg naa jënd mais xaw ma lu may jënd barki salaatul fatiha lu ma naqaree ngi noonu ci Sénégal Sénégal ñëpp bëgg a jaay mais kan mooy jënd à la limite Mm-hmm. Eh, ba pare ñëpp ñoo yem li ñuy jaay li tax bu nit jaayee li duñ dem jaay lee xanaa xamoo Europe li ko li ko ah soo gisee ñu naan nag diw dafa am xaalis xam nga lan moo ko may xaalis kii bu jaayee sax kii montre lay jaay kii jaay tubay jaay leneen <laughs> maroon taba bi maroon taba bi Mariane ma la bëgg nee na maroon taba bi maroon taba mooy ban yow moom naa ko nii waaw kay teg naa ko nii bilaay lii loolu day yàq day yàq day yàq société bi en fait c'est que Sénégal loolu moo tax dara du dox ñëpp ñooy jaay actuellement ñëppay jaay ku ku jaaxle ci li nga doon liggéey rek wàññeeku ma woote la kii jox ko bindal ma moo Sénégal loo moo tax kenn du am xaalis parce que ñëpp ñoo ngi doon ñuy jaay ñëpp. Ah. bu sama suba nga gis léegi ku teg yére ko jaay ndéy yow nga xaarat bi jëkkoonoon fa Mariane ok waa teg naa ko nii voilà après nga woo ma dégg nga waaw maa ngi lay woo ma paree léegi naa leen woo soo paree live nga woo ma waa ok yaa ngi def ba mu baax de yàlla jar ak jàpp bu fi kenn jaay nag fi xoolal ndey gay barki rasul la ku fi jaay yére góor dinaa xeex ak yow dinaa génn dafa waaw bu baax Habiba. Ah, <laughs> doomu déggee doomu déggee la. kooku doomu déggee yooyu lay def. Biba muy Pendo. maa ngi ko jaay yére góor na nañu ñu dimbale rek bàyyi ko moom kese mu jaay yére góor après ah. keneen xool leneen lu mu jaay ñu ñëpp bëgg jaay ndoo kan mooy jënd. waaw loolu moom am na waaye waaye na ngay jaay yére góor yow jaay yére jigéen kon Pendo. non man yii man dugguma si ñi yow man jaay ko te kaay ma man. gis gis naa la bokk man dara jaay rek. non dañu bëgg jaay waay Sénégal lii moo tax kenn du doxle dara ku jaay greffage nga gis ko mi ngi doxle ñëpp di jënd yow nga dem jëndi du teew yaay jënd a bon ñëw gën ko ëpp ko làmmiñ ah. torop seen business bi ni ñu koy defee baaxul dara waay lii di yoon waay moo tax Amérique xoolal gis nga California California fi jee asu dëkk noonu dëkk bi jee asu dëkk boo fa amee boutique boutique supply bi jee asu jaay di nga di nga doxaat di nga demaat presque beneen dëkk fekkaat fa beneen boutique bu mel noonu loolu moo waral loo fay jaay da am xaalis Sénégal la ñun xamuñu loolu yow eh yow eh kaay xool balaa lii rafet na ndéygay c'est très joli bien dàq xaaral ah, lii nga sol moo rafet yow blouson blouson la ak lii yow eh lii rafet na yow weex bi rafet na. kaay ndax xale yow la ñuy topp nag si kii bi Korité bi. xoolal bi xoolal bi xoolal bi oh, moom rafet na moom. léegi dañ ciy ñëw nag ay taay yu gudd xam nga nit ñi dafa am ñoo xam ne seen jëkkër dañu ñool. waaw waaw ñoo xam ne seen jëkkër yi daa gàtt xoolal tubay baa ngi nii. waaw bii de rafet na moom blanc bi moom pendoo yàlla boo ci mucc. yow eh déggal li sans dépense yàlla moom da ngeen woote ci 78 453 10 10. li la yére yi prix 60 000 la amul wàññi 60 000 60 000. nday wàññi sa loxo nag kaay 60 000 bari na de yow sam dëkk bi nekk dafa dëgg réew tis yi dafa yomb yi ta bàyyi nga def def naa ko 55 <laughs> kenn bi neexul ah, loolu choisir ma fay la ndeysaan am na ku ma fi choisir loo fii nii ko xaalis bi rek man jëndu ma de dama feebar kii di ma choisir loo nekk dama ko wéer rek dama feebar moom da ngaa woor bébé mbaay eh, mbaay dem supermarché maa ngi ñëwaat dugg ci live bi dégg nga oh, waaw d'accord neen bi maa ngi war a jëndi mburu man léegi eh, da nga war sa laaj mën na ko ba pare léegi ah Ndeye Ndeye. waaw et puis ba à tout à l'heure waaw da nga après bu ñu kanamee tuuti da ngay laaj parce que dañuy dem jënd heure bi la heure mburu yi jënd mburu ay yooyu xam nga. waaw. gi benn heure bi nga live ko xoolal boo ko live fee ñun ñu dugg ñu jaay ñu jaayal la ko nit ñi jënd ko nit ñi jënd góor yi mu dox man maa dem mais xaw ma fu may wàccee nday génneewaat ma rek comme yaa ma dugaloon. man mën naa laa wàccee. maa ngi koy yem rek. ana Abdou Xaadir yow borom rom. <laughs> waaye ndéggéey Roma neex nag boo bëggee dégg dëgg nag. waaw Roma neex te. ak sunu xarit ba aljana aljana aljana. aljana. yow benn gisee benn gisee xam a jàng baaxul. <laughs> xam nga damaa foogoon ni sama visa bi jeex na. déedéet. xam nga sama visa bi kañ jeex. wuyaay. <laughs> ñëw na ci ñëw bi ñaari at ci kanam. sa diggante yaa deux ans nga amoon. barki laajal jaaf. deux ans nga amoon. laajal jaaf a jàng baaxul. ay ndaw maa ngi ko jaaf bi non euh, du ñàkk a jàng bi de ndey ko jaaf rendez-vous laa bëgg a sama benn sœur rendez-vous. nga fote ko jox ko ko mu ne lii des. kañ jeex nga ne. ñaari at ci kanam xaw ma xaw ma lan. yow je néega yow mi yow jaw mais nag mais nag tamit euh, da ngay xool ñaata jour nga fay def parce que des fois mën nañ la may. deux ans nga war fa def quatre trois mois dugg di génn dugg waaw moom laa wax. parce que yow bëgg a xaabaabal noonu. man xaw ma yow kay kon daas ko rek parce que am na ay programme yu war am ci Gambien yi daas ko rek ay programme yu war a bërëngoo. <laughs> te xoolal yaa ngi doon wax naan bu ñu ñibbee rek nga rëndul fule gaaw balaa waali bi Brescia. man jeexal naa di. ah kon renouveler man avril la non non am naa rendez-vous avril incha la sama visa bi di jeex mais bala muy jeex laa koy dugalaat nii. fi nii kay moom a kii moom nu mu tudd sax consulat bi dama bëgg a jàkkaarloog moom lu rëy lettre bi may bind moom xam naa naa ko bind ba ni ko c'est moi peine de gisee si vous me connaissez pas tap tap tap tap le Google. ndey daloon moo ma nar a daal jàkkaarloog waa ambassade wax leen lu <laughs> Benno su fekkee dafa am ñu bëgg yëre góor tissu tissu góor ñu bëgg a ñawlu. Ah, dañuy ah yow nay nag sa yaram tàng nay lii bu ñu ndogoo ba pare boo ko tegoon fii dëkk bi yëngu de. non damay bàyyi nitu màkkala yow wi ma barki rasulaa nitu màkkala billaahi parce que amul tax dama xam ne dama sonn da nitu màkk tàpp tàpp la google wil kii yow non yow nitu <laughs> ah non yow da nga yow non yow yow Ndeye man li ma la bëgg rek wala heure bu bëggee wax rek dafa am lu may seet te man naroon woo dem si guddi pour wax ne réew mi nga poñe nii loo ci jotat après te kii jël ko rek ma yow yaa ñeme man bàyyi ma dem màkk toog fan nday man li ma gis fii ci réew mi su ma ko waxee dan may yóbbu fa rek gis seetaan naa ne ku ne di expliquer sa jaar-jaar. <laughs> billaay yow. billaay nitu màkk la waaw pochette yaa ngoog pochette yi dama ko bëgg barke yàlla maanaam la man ma sonn. tàpp la google dëgg la ambassadeur bi kat yow yow da nga koy woo yónnee ko lettre pour wax ko ne ko mu may la long séjour pour mu leer. ah ambassadeur bi. mais boo ko bindee lettre da ciy jot nga bind ko mel. a bind man damaa mos a déposé visa te bindu ma lettre. man damay bind lettre bu jub xoj te man yi nit ñi di bind noonu di di demander ay je man damay dama koy expliquer lépp dama koy wax ne ko man. Janet Assé waaw. Janet. Janet Assé wala Janet Assé baaxu làkk ne ma fii <laughs> li ma wax barki dem na ne Oumou Sow dafa làkk français xamul ma toog deux jours laay woote France. <laughs> Oumou Sow ne arriviste ma woote France ne la léew lan ma arriviste. <laughs> waaw man kooku laa gëj a gis an tam ko gëj ku laa dajal kooku naan moom mooy ko amul dara ku judduwul fekk dara ma ne ko oo oh, kon umu sax waxul ak man kon xam naa keneen lay waxal man ma juddoom fekk sama baab di liggéey aéroport <laughs> kon waxul ak man kon moomu ma lool yow pilis dafa neex de yow pilis a dàq ci àdduna waa gis ngeen bii bii ban giri wala bii ban giri kaña la waa giri kaña am na poche am na tubay dégg nga lii mais nday lii buñ dogo kii de. ah. benn waa Italie ngi lay billaay waa Italie mi namm naa leen Italie waaye dund naa fa lu metti loo xam ne day dama lay wax sama tukki bi bokk na si yi gën a metti ci àdduna. si laa jóge ko ba léegi nii barke Sëñ Babacar nday si metti rek laa ko teg. billaahi wala bi ma ba léegi bi ma ba léegi dama feebar barke Salat Fatih. barke Sëñ Tuubaa man moom damaa dugg Sénégal feebar. ki yàq tournée bi baalu ma ko ba ba ba ba mais mais fen doon ndeysaan bébé baas moo nekk ba Makka di ma ñaanal dugg ci dem ci xabru yonent bi di ma ñaanal. bébé baas dafa la vidéo wax la ko. bilaay wallaay tallaay di ma ñaanal barke Serigne Touba Mbacke yal na ko yàlla fay bébé baas. mais nag war na dajaloo amiin yaa rabbal aalamiin ku baax ngeen ma ñaanal yal na ko suñu borom nangu. barke Cheikhul Khadim. bilaay bébé baas dafa baax de. moom bi ma bi ma ñëwee de ak sama colère noire bi nga xam ne moom laa waroon a wàccee Sénégal war dëbb Sénégal ba mu mel sunguf. wooru maam Ndiaye. barke mm-hmm. Alaaji Malick bay baas ma ma boloké barke Saratul Faté ni ma bul def lii ak lii ak lii kenn du moom. mooma baax la. non Bébé Baas nit ku baax la yow Pendo barke. Eh, fii baax fi gën bon barke Serigne Babacar lu waay jaay lu baax moo ko réew mi ak bi nii baax dong moo xew moo fi jub mooy liy doxal. Bébé Baas nit ku baax la jabaru artiste la mais jabaru artiste bu baax ku normal ku nité. mais Bass dafa baax de wóor na Serigne Babacar man moom ñëpp sa ñëpp samay xarit lañ Bass ma li may waxanteeg dama koy woo ne ko man seen héritage bi laa bokk chaque jour ma ko ne ko kan la ñuy séddoo papa jàmbur bu gaañ ma bokk héritage jàmbur man tamit neex la yow ma rek dégg andege mhm. papa bee Bass dama bokk ah? héritage bi bu ñu ko waree saraxal Fuuta dama naan leen nañ def sarax bi Dakar chaque jour ma ne ko ah parce que ñuy séddoo xool chaque jour su ma ko gëj a dégg ne ko dara ci sunu affaire séddoo mënuma bañ séddoo ma ne ko sunu miraas bi. xool vraiment yàlla bu sédd la mbaa bi wàññi da ngay wàññi bi. yaayam woo ma ne ma ma woo bee baas. héritage lan ah héritage bu baax bee baas bi yero baas. ah yero baas papu bee baas. waa Pendo nag yow mais baax na nit mën na baax ba nga bokk ci Casa sama xarit la moo tax sama xarit la am naa droit ne ko bokk naa si. <laughs> papay jàmbur a bokk ci héritage jàmbur. <laughs> na. non yéen eh, lay baax parce que nday ngay génne ma yow tam damay sanguwaay. damay Pendo mënu maa mënu ma laa génne yow yaa génne sa na ngay génne complètement. kon damay déconnecté ma déconnecté ma déconnecté yi. déconnecté sa téléphone ma génn.